waaw salaamaaleykum jërë ngeen jëf ñu ngi nuyoo bu baax a baax a baax di leen wax jotaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, di rafetlu bu baax a baax a baax jotaay bi di ñaan yàlla sunu borom lépp luñ ci fa wax rek yàlla na ko yàlla jubal ba mu jub te lépp lu ñuy dox fa nu jigee ba ni ñu yegsee yàlla na ko yàlla def muy aw yiw ci barke Seyduna Mohamed du nuyu ñu nu àndal ñëpp nag bu ma nee grand Fall ak nuyu naa ñëpp waaye nuyoo boobu dama koy jël teg ko ci loxol permbaw mu jox ko gaay ñëpp waaye du nuyu ki nga xamante ni mooy Makhtar Diop Soubatel muy sunu mag di sunu xarit di sunu frère di am mbégte nag. ci ki nga xamante ni mu sol dàllam ñëw ni damay seet si sama papa damay seet si sama nijaay damay seet si sama xarit damay seet si ki nga xam ne samay idole la muy Alioune Mbaye Nder Sidy jóg ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan te yàlla wéral la ndax lii nga def nekk lan lu rëy rëy li tax mu nekk lu rëy mooy damaa dégg démb ci say kàddu nga wax ko waa ko yebu nangol la ko ndax c'est la première fois koo xamante ni mi ngi juge fii di dem ci saal bu mag boobu di Zénith wër dem seeti ji say baay dem seeti ji say mag dem seeti ji say nijaay ngir lan tàllal ko loxo pour mu ñaan la kon mention spéciale mu nekk idée bu rafet a rafet ñu lay ñaanal nag lépp loo xamante ni yaa ngi jug pour di ko sàkku ji ci ñoom muy ñaan yàlla na ko yàlla nangu ba fa nga jëm lu muy diis diis yàlla na oyof eh, toll ci yow ci barke alxuraanul karim nga seet ci koo xamante ni am na lu mu mën a wax ci moom grand yàlla yàlla guddal sa fan te yàlla wéral la ci dara daraje sëriñ Babacar si yàlla taala mu nekk koo xamante ni ñun bi nu gimmee rek ci musique dañ ko cee fekk mu ci doxal bu baax a baax a baax def ci loo xamante ni su ma neexee ma ni la musique sénégalais li nga ci def kenn defu ko ci wallahi azim man nag li may xam naa ko mais bi ci des ngay jullit piir di ab taalibe yàlla nag ku mun a tafay du la liggéeyloo yàlla bu lay tegi natt day lay xool ndax àttan nga ko ba ba ba settantal ko mu la koy door a teg yow ku la gis at yi ñu jugee jaar nga ci ay ay ay ay ay yoonu metti waaye nga dëgër rek muñ rek doyloo yàlla rek xam ne yàlla mooy tege natt bis bu ko jëlee rek bis bu ko teggee rek mu jeex ñu lay massawu tamit encore une fois bu yàggul dara ku ne gis na ni lakk-lakk bi am ci sa kër gannaaw loolu ñu ngi la koy massaw bu baax a baax àdduna yëpp tamit di la ko massawu kon ça fait l'occasion ñu lay massaw waale di ñaan yàlla loolu yëpp yàlla na la dëddoo jàmm li ci sa kanam nag yàlla def ko muy ay xéewal kere bi ngay def 30 ans de Nder dina am lu ma ci wax tuuti rek waa dafa am liggéey bu baree bare ba doon liggéey man ak yow ci suuf te lépp macha allah yàlla def na ni lépp rafet mu nekk nit ku gore ki tax ma gën laa jàpp ci sama àdduna kenn la mu Cheikh Amar olof nee na ku la war a takk tukki dem bu la abbee teg doo bañ man awma ku dul kooku chaque jour ma wax ko te tey laa ko gën a mën a wax téeméeri at ci kanam laa ko gën a mën a wax ngay seul artiste boo xamante ni tamit li ngay wax ak moom ci lu bari dama koy fekke waaye heure boo waxee moom wax ba du yegg da ngay jooy loolu nag cofeel la nekk na Allemagne mu tëdd feebar bi nga nekk alo mu ne la alo nga ne ko Cheikh rek da ngaa jooy bërki démb Ndiaye bi ma la ko paasaatee nga ne ko allo mu ne la allo nga ne ko kookal la Cheikh mu ne waa wax ja yëggul loolu nag cofeel la loolu cofeel la mu bëggal la boppam yow it te yàlla rek tax kon yow yaa baax kon àdduna bi yëpp ñu ngi lay sant àdduna bi yëpp ñu ngi lay gërëm waaye àdduna bi yëpp ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla guddal sa te yàlla wéral la ki jug seet la nag dafa nekk loo xamante ni su ko defee moo war su ko deful moo war waaye ndokk ba mu ko defee ndax ku la njëkk ci néeg bu lënd moo la mën a wax noo fay toogee yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla wéral la duma guddal ndax danoo ànd ak ñoo xamante ni wax dëgg yàlla lii may wax wala lii may def ñoo ma ko dàq fuuf ñu xaj ci lool nag macha allah kon dinaa jox ku mel ni Modou Mbaye wala la wala sunu père Mbaw mu sànni ci kàddu ñu daal di day tënk rek ndax xam nañ ni sa jot bariwul ñuy jéggalu bu baax nag ñuy jéggalu bu baax ndax réew mi kenn ku ne xam na ni jot amul waaye bi nu ko nangulee loolu dañu lay sant di la gërëm kon sa doom sa xarit Sidi Diop mooy ñëw di la yëgal bisam bu réy boobu muy it bëgg nga ñaanal ko ci bëgg nga yedd ko ci bëgg nga conseil ko ci ndax mate nga ko jërë ngeen jëf jërëjëf tuuti rek lu bari nit looy def mu jig danga koy continuer kii maam moom ñoo bëgg dëkk kër Seydil Hadji nday njaay sekkay yaayam taani mbayay baayam kii bi muy man dara fekkewul dara coono la fekke juddu yem ci naqar ak tiis bu koŋ ca kuli ngi jaan diggante kuli jaaloo koñ jàkka ba ca kër Saala Mbata ko ma dëkk su may wax ci moom duma ko àggalee barki Seydil Hadji Malick yéen a toog ak koo xamante ni sii li mu daj nit du ko daj ci kaw suuf te du ko wax te dafa jar mu wax ko kii nday jaay sekk yaayam jom ak fulla fayda ak fit fa la dëppee Alioune Mbaye Nder nii doomu ndey Moussa jaw njaay ak ma sàmmura ci diggante ndut kuli jaalo kon suñu borom dogal muy tuut tànk lu ay magam waxi mu suul oto ba ca kanam rek lañu ñu mu teg bët baayam bii toog man a woy lool bari jom bari feeling kuli ngi jaan la dëkk dama ni foo mu génn ci réew mi boo ne kuli laa dëkk gars yi danaa tekk maanaam da duñ duñu sax ñemee xuus à cent pour cent parce que lépp loolu liñ jaay dañ koy maye ci wàllu yeewute ci wàllu civilisation ci wàllu nité ci wàllu fit xam nga lu yàgg kuli mën a jàng mën a fubal mën a way eh di géwal pire duñu dem musuñoo dem fu leen wowowul ci àdduna boo gisee moom nii mu mel ni comportement bi mu yor nii su ko bëttoon ñun dañuy jaaxle fan la koy jëlee ak fu mu koy doon ci àdduna gàcc ngaalaama mbay kontaan naa ci yow yal la yàlla sàmm te bu ma la waxee ni la fa nga demoon di nga fa demaat doo ko gëm parce que gis nga nii sii di def Wally dana ko def Papa Diouf dana ko def ñeneen dana ko def ñeneen dañ ko def yow laa gis ci chanteur boo xamante ni yaa mu sa taxaw ci kaw chaîne Youssou Ndour dàkkoon ne yaa ci réew mi kon tey bu nu ñëwee fii sa doom di dem jeune ni kenn doyuma lu dul sama baay ay conseil am ak ñaanam laay ñëw taataan si ma ñëw ànd ak moom su ma waxul lii ba nit ñi xam yow yaay kan man damay génn gaam maa nga yaroo ca atelier Baye Sidi Thiam ca kër Seydi Aboubacar Sy Malick fa lañ jàng métier ñun ñëpp kon Nder duma guddal sama yarama tàng mënu ma woon a bañ a wax lii te kilifa ak jataay bi mën naa la ni fii maa fi mag man loolu la yàlla dogal mais ñii ma àndal nga xamante ni si ñooy suma ay njaboot barki Seydil Hadji Malick dama am ñoom fier tellement que ba bu dee wax damay sama xol bi dee bëgg ba du ma bëgg a wax waaye tey li ma tànguloo mooy deret ak mbokk maa nga dëkk euh, Kër Salambata euh, moom la Seydil Hadji Wali waxoon ni fii mooy wanagu Seydil Hadji malik di Yves di nuyu sama jumeau yi waaye di nuyu sama ñaari doom yi mais di nuyu tembawaar ak sunu kilifa gii nga xamante ni fii sunu borom moo dogal njiit yàllaa koy sàkkal boppam mu jiite ñu ba pare ma modeste lool yaru ami gi nite mi ngi ni toog asada nga nële di mag ñoo xamante ne mag ñu yaru lañu ab tegale nag bu guddee te daanul ba jiitoo jub ñun ñu nekk ci kanam bu ñu incorrect bu xale yi dikkee rek àdduna tukki kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu sama jumeau yi di nuyu sama sécurité di nuyu ñii lañu jëra ñii laa bëgg ndeer nga ñaanal leen suma média bii xale yi sonn nañu tàyyiwuñu yuqatuñu amul benn yoon bu ñuy dem benn programme ñu am leen lu ñuy xaan-xaan yi dañ ci jàpp-jàpp bu am solo boole kook di ñàkk seen alal ci mbir mi sëriñ suuf si sëriñ ba danaa wax naan bu da dara ji jarul dara doo am ca dara ja dara kii baayam moo daa yoru xiin nga bu Massamba Sall chef de canton bu Moussa am lu muy wax booba rajo yombul mu daw ni ko eh, eh, eh, jëwriñ may samay sàll dama ca taani mbay ne ko na ma yéeneel nangam ak nangam mu jóg ni jiriñ jiriñ Massamba Sall nee na nangam ak nangam lu wax kenn du ko dindi maanaam problème sax bu musaa am ci dëkk bi saytaane nar ci dugg dañuy woo taani mbay mu mu tëgg xiin gi saytaane yi naaw barki Seydil Hadji Malick mooy bàyyi kii xam nag ba ca gën mooy xam xam xam nit ki moo moo dax may ziare ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu suma DG euh, DJ Yves vraiment mu def suma carrière def ci contribution bu am solo di ma may consultant ci guddi gi euh, ba tax fu ma tourné ñu ne ma guddi gi Eh, di nuyu Petit Gallo suma fiis di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn yàlla na ñëpp am jaam magoor kontaan naa suma xol sedd na parce que da ngeen ñëw suma kër tey xam nga li daaw mu ko wax dama daa ñaan rek bàyyi gars yi ñu doxal ñaan gi nag tey kenn du ko def ndeer mi moo koy def yàlla na ñëpp am jàmm. waaw jërëjëf suñu bàyyi bu baax bii. say kàddu heure buñ ko taataanee rek jële ci ay njëriñ macha allah yow dangay mag mu baax mag moo xam ni réew mi ñëpp la naw nga dox sa carrière macha allah ba lépp rafet yàlla na nga ko yeggale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa mooy nuyu ñëpp rek di am mbégte bu rëy nag tey ndax Sidi tey daa ñëw këram Sidi Tiwaawan la xëyee Ndeer Tiwaawan la xëyee ñu bokk lépp ñoom ñaar maa ngi nuyu Ismaïla Mbaye sama jumeau bi toog di sama lépp ñu bokk lépp maak moom su ma ko nuyoo nuyu naa mbooloo mi ñëpp ndax bëgguma lim ndax temps bi lañuy lañu bëgg rek tënk ko comme ni ko DJ Yves waxee Siri nag daa xëy Tiwaawan ñëw Ndakaaru bari jom lool xam li mu bëgg xam fi mu jëm mu ni man day sama baat rek laa am ci laa fas yéene teral nday teral ci baay bégal ci sénégalais yëpp waaye bi muy ñëw ndakaaru dafay fekk ay ndaanaan fekk fi ñoo xam ni yóbbu na drapeau Sénégal partout dans le monde ñoo xam ni hymne nationalu Sénégal bi rëkkal na leen réew yëpp nag aéroport bu ne wàcc fa yóbbu fa culture Sénégal al ci Sénégal loolu loolu loolu loolu àdduna wërngal képp xam na ko li nga fi def ci réew mi ak li nga fi jëf ak fi nga jëlee musique sénégalaise ak fi nga ko yóbbu histoire du Sénégal bind na ko mi ci archive bi te ba tey dara dañu ci Siiri nag daa ñëw tey ngir waxtaan seeg yow sàkku si ñaan ndax dafa jëm Zénith ànd koog nawleem yu baax yi mu ko àndal njiit la di Matar Diop suba teel Matar si la xarit Diop Ngone Mbengue yaay jal kuy ndaanaan ci réew mi xam nga ko ku mu mus a gunge nga ñeme te boo demee am ndam moo gunge Sidi jóg mii ni ko boo xëyee na def une forte délégation ànd ak ñi nga àndal war a àndal ñëpp dem ca sa mag sa xarit sa baay sa lépp al mbay ndeer looloo waral tey teewaay bi fii ñu sàkku nga ñaanal ko bu baax a baax dina la ñaanal yow it yàlla guddal sa fan yàlla defal la jàmm ndax yow lépp loo war a def def nga ko bu dee wayu neex way nga ko bu dee oto yi dawal nga ci ba dagg bu dee kër yi suñ boroom jox na la ko ba muy tàkk nga dellu dugaat ci beneen kër loolu sant yàlla la kon yow dara méttiwu fi nag dara méttiwu fi ab julit nga ku gëm yàlla nga te yàlla bi muy séddale teraanga yi fàttewu la yàlla na yàlla lafal la cat bi jaay ndawul Moustapha alayhi salaatu wasalaam loolu ay kàddu la woon yoo xam dama ne woon naa ko tënk rek jox Alaaji Ismaïla Mbaye moom it mu dugal sànni ci ay kàddu incha allahu rabbi kàddu moom du mën a ndax li mat a wax lépp wax nanu ko li bokk di jariñ nag mooy foo munta teew bu sa bokk sa bokk teewee teew nga kon bu fekkee temps bi danoo xooj ngeen wax ba noppi lu may waxati xanaa li may wax kay mooy werante tubaab boo ci bëggee bokk fexeel ba yore ci kayit yi werante tubaab boo ci bëggee bokk fexe ba yoreel ci kayit yi da ngeen di seet koo xam ni bi ko yàlla naree dimbali nag yore na ci kayit yi mooy lan jom fulla fit fayda ak ak taalibe da nga daan ñëw kër daam alaaji daam Jóob Mansour gun dafaa jub mi ci àjjana àdd xari mataar nuru xari mataar galaay ak jëlit bay asadi ba Fat Njaay waaye ku la xool ci kaw ba ci suuf rek xam ne tubaarkàll nitu personnalité nga te nitu devi nga te c'est très important Cheikh Blad Marema Jaxate ci bi ñu jullee tabaarkàlla macha allah korite ba pare dafa def discours ndi mu mu ne mën nga ko summi solaat ko ba mu des bu bum personnalité naa ko summi bàyyi ko fii ci bunt bi ba génn déedéet dalu la wërsëgu Ndakaaru taraa ngay ndar barkeb Touba Tiwaawan yàlla na la topp ci barke Seydina Muhammad rek mooy Sidi Diop dafa ñëw seet si Alioune Mbaye Nder papam la kilifaam la ci musique te Nder fu mu tegul tànkam ci àdduna te musique yóbbu ko fa amul wax naa ko waxati ko taxaw na ci ay festival yoo xamante ne ba tey ñi ñu tuddee fii ne ñoom ñoo jiitu ci musique nekk ay papa kenn tegu fa sa tànk moom teg na fa tànkam bi ñuy def festival mondial des arts nègres man dama doon def reportage di wër di dem ci régie bi di laaj tubaab yi bi ndeer ñëwee dafa tardé jour boobu ñoom Baara Ibou Mbaye gars yi nekk ci kaw scène bi doxal boobu yaa ngi sol ensemble bu bleu costume africain bi nga tëggee ba pare dama dem ba ci régie bi di waxtaan tubaab bi ñu ne ba depuis festival mondial des arts nègres bi commencé ba tey spectacle yi fi am yëpp bi moo ci dàq parce que musicalement dañoo dégg musique tey ci kaw seen bi donc yàlla yàlla defal jàmm tey li ñuy def nii tey mënul ñàkk mais yàlla yàlla may xolu muñ ci nattu yi la jot dal yëpp man sama père nga te yàgg naa la ko wax dañoo dañoo juddu nga nekk sunu sunu waykat ñu lay suivre bi ngay ñëw kër Bassirou Gueye Beldam kër ñoom Serigne Mor dañu fa fekk donc yàlla na yàlla defal jàmm loolu daal laa ci mënoon yokk ñu bàyyi Sidi mu doxal. Euh, kàddu bi lu mënul ñàkk la rek li ma waroon wax ñii wax nañ ko lépp olof dana wax waxaat du bari wax. donc di ko ndeer lenn rek laa lay wax ne la sa doom fi nga jaar ñun xam nañ ko fekke nañ ko peut-être xale yu bari nag fekk loolu xamuñu la mais ñun xam nañ te li père wax da di dëgg goo xam ne buñ ko nekkoon di ci waxaat encore day gën a gudd rek mais lenn rek laa xam ne daal naa la ko seddal mooy Sénégal ñëpp la bëgg ndeer amoon noonu saa moom je te le non non loolu loolu dafa yàgg dañuy toog sax des fois keroog dañoo toog ma ne ko orchestre Sidi bi lu ma la wax yow orchestre la may jox moom rek a fi am orchestre boo xam ne si bu la tëggalee nga xam ne musique am na mais sérieusement tu as bon CV yal na la yàlla defal jàmm gudd fan wér wérle et baat bi wér tamit waaw Nder yow kenn du yow macha allah. quatre heures du matin mu continuer di waaj. bilaay dëgg la waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp ah kàddu yi rafet na loolu maa ngi nuyu suma papa Père Mbaw suma xarit suma kilifa maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax di nuyu suma grand frère monsieur Fall. di nuyu Ismaïla mbaay sama ñaari doomu nday yooyu Modou Mbaye ah Basirou DJ Yves maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax Prince Momar sama papa suma per suma grand Assane Lo sëñ Bakki Magor Diop suma doomu baay Demba Waar maa ngi nuyu ñëpp di nuyu nag presse bi nga xam ne boobu ba tey ñoom li tax may wax ci ñoom fu ñu dem parce que nag li ñuy def yombut boobu ba tey fépp fu ñuy dem ñu ngi ñëw ànd ak ñun gunge ñu di ci def seen doole di ci def seen xéwal nii ngeen ànd ak man ci bis bi yàlla na leen ko yàlla fay yàlla rek moom fay parce que nag lii du force munoon ngeen ñu xaar ñun ñuy jël ndax soxla nañu leen bu ñëpp jëlee yónnee leen mais da ngeen ñu gunge di ko am à l'instant kon loolu ngeen di def man xeebuma ko yàlla na yàlla fay leen ak képp koo xam ne rek presse la te nekk fii ci Sénégal maa ngi lay maa ngi lay sant moo fa jógee nag damay sant sama papa ji ma toogal comme ni ko père waxee rek daa jóge Tiwaawan ñëw toj nda toj ndakaaru toj àdduna ma jóge Tiwaawan ñëw ma dégg jaloorem Tiwaawan di ko suivre ba ni may egg ndakaaru di ko suivre di ko suivre di ko suivre ba ni may wéyee ci albumum mu nekk nit koo xam ni per li nga wax dëgg la de woykatu woykat yaa ngi nii waaw man moom wax na toog waaw toog nañu seen petit gàlle ma wax la ko booba gën naa ne xale saatu géejawaay toogaat nañu fu nekk ma wax la ko man bu ma taxawee sur seen di way parce que mën a way rek ne suffit pas man bu ma taxawee sur scène di way sama papa rek ngay gis bokk nañ émission ma way ba ci yàgg def ay gestes comme ni nga ko waxee la xool bi daa daa rafet mu jékki-jékki sëg jàpp loxo Salam Diallo peese ko sama morso dama koy déglu bu baax sama morceau bi nga xam ne bokk na ci morceau yi gën a cartonné mooy Snapchat leen Snapchat leen loolu moom moo ko moom moo ko moom morceau boobu morceau boobu ku yor kóol bu baax yëkkatil sa sinam eh, Snapchat leen Snapchat leen mooy mandingo. waaw mooy foo xamal waaw waaw am nañu amada he nana bi ñaami naate nana nanananananana xam nga loolu loolu kenn mu fi ko gis Ismaïla Mbaye mais père mën a woy torop macha allah woykat boo gis Sénégal muy téye micro di woy li may wax ni leer na ma koo ci ibbi xolam ndeer mooy woykat dañ ko yàgg fan mu civilisé lool nag bari maanaam bari personnalité mais moom dafa amoon touche spécial am mooy un véritable bête de scène man loolu tey bu ma ko déggee lépp ci yow laa ko rote grand mais nag nga ñëw uuf ñu bëgguñu man fu ma tasanteeg yow même bu dee ñaari minutes la di nga ma conseillé loo xam ne bu ma ko continuer sama carrière gis ci gis ci gis ci résultat de Demba Ndiaye muy def album ku ne bëgg cee woy nag mu ne ma fiis dama bëgg nga ñëw woy ci woy ci album bi mais album boo xam ne dama ñëw mu ibbi ne ma xoolal lu la neex nga way mais loolu man mosuma ko gis xoolal fu la neex ak lu la neex nga way maanaam tànnalu ma ne ma fii laa bëgg nga def lii laa bëgg nga def wala lii ak lii da koo ibbi ñu ibbi ma déglu ko ba mu jeex mu ne ma xoolal fu la neex nga way ñun ñëpp kenn ku ne da ngaa ñëw xool lu neex nga way bu ko neexoon kenn ku nekk mu sàqal la fi ngay wayee te foofa ngay way mais da ko ibbi yëpp na njaga tegal la ñu déglu ku déglu man bi may ñëw maa ngi ànd ak Dieyla je pense Dieyla mhm. ñu ibbil ko mu way man ñu pare ibbil ma ma way mu invité ñun ñëpp loolu ñun ñun ngandim plaisir la ci ñun parce que dem ba bokk ak yow seen dem ba bokk ak yow ñëw wëy ci sa album looloolu jeune bu yeewoo ci dëkk bi di wëy ñaan nga ko yàlla on se la vérité ci mu kan nga way ci mu alin bay ndeer mi nga xam ne da daan jàngi école teg ko sa sa écouteur di ko di ko déglu wala boog amaana bi muy débuté carrière am di way booba juddoo ko parce que man ay Nescafé frappé yooyu yëpp man fàttaliku ma ko waaw man loolu fàttaliku waaw loolu fàttaliku ma ko kon tey jii kooku bu ma demee tey ba toog mu invité ma ci albumam loolu plaisir bu mag la ci sama jëmm ji waaye tey bu ma demee bay jëm ci bis bu mel ni Zénith ah loolu bu ma fay dem bu ma fa demoon ba egg toj fa mu fees dell nit ña taxaw ci biti bu ma wàññee ko ba toog sama néeg te invité wu ma ñëw ma sàkku ci sama ñaanu baay bi war nañu ma yedd euh, dañoo bokk nag fi ñu jóge muy Tiwaawan kon bu ñu ñëwoon fii rek sama ay mbokk woo ko dañ ko war a wax ni kooku yaa fay baayam yaa fay kilifaam parce que nag bu ñu doon gont tey man ak yow ñooy ànd dem Tiwaawan ma dëkk kër Cheikh Awa Balla nga dëkk Kuli waaw man ma dëkk kër Cheikh Awa la sorante wuñu dara sama enfance yëpp ma defee ko ma defee ko kuli tuwaawan ci ñoom jàlloo Diallo Diallo percussionniste ma koy nuyuwaale bu baax ndax moo ma njëkk Abdou Karim Diallo moo ma njëkk a jox micro biir Tiwaawan di tëgg sabar mu arrêté ko ne jox leen kii mu woy ñëpp naan waaye kii fi sabar bi nekkoon lan lay woy mu ne ma duggal def ma dugg def benn cinq minutes mu ne ma fu may ñëw rek fu may tëgg del def nii rek ma koy def di ko def ba mu gi ñu naan ko xale bi ñëw di woy dee ñu ko indil mbir ma di màgg ba ñëw dakaar géejawaay di màgg ba commencé sénégalais yi di ma xam muy màgg di màgg ba tey ma koy jël di ko yóbbu Zénith munuma ci ànd kenn ku dul sama ay waajur suma ay baay parce que nag cër yi damay dégg ci gars yi di ko wax ku dul joxe cër kenn du la ko jox cër bii da koo jox suñu ay papa yi fi nekk ñoom Baaba Maal ñoom Ismaïla papa Thione papa Youssou Ndour amul ndaanaan bu nekk ci dëkk bi bu reconnaître mën way macha allah je touche du bois grand bi toog te ñu nit bi ñu ñëwee dañoo gis ñun ñëpp cër bi nga leen jox ñoom ñëpp it ñu nangul la ko teg la fu ñu tegut kenn kon génération bu bees bi man sax bu ma paasee keneen maa ngi ñaan yàlla bu ma paree sama génération ñëpp tamit dem mais xam naa ni ku ci doon demit di nga sol sa daal ñëw ba ci père Alioune Mbaye Nder ne ko yow laa bëgg nga bokk ci ñi may gunge. nga ñaanal ma gunge ma ci balance bi guddi gi jot nga gunge ma ci soirée bi nit ñi dugg ñu diwoo man ak yow nga ñaanal ma loolu moo ma indi tey fii ci sa kër te suba yit bu ma amaatoon beneen événement jëm ko fële ca biir siit damay ñëwaat ba ci yow sama papa ne la papa gungewaat ma fa ma jëm suba ma amaat leneen ne la papa gungewaat ma fii ak yaa ngi fi nekk yàlla na la yàlla may gudd fan bi tal beeg fekke fi boo demoon ba bi jaaw weex yor sa kan danaa ñëw ba ci kër gi tàllalaat loxo yi ne la bàyyi nag ñaan ya du ko mës a fàtte nga nekk nit koo xam ne ñëpp la respecté père jeune yëpp la respecté amul kuy téye micro Sénégal te respecté wu la bëggu la defu la idole defu la référence man nag moom dama laa bëgg man bu ma taxawee sur seen di way non da ngay gis fii da ngay da ngay gis ci fii di Alioune Mbaye Nder bu may fecc sama ay déplacement dangay ngay gis Alioune bay Nder rusuma koo wax fenn parce que kan ngay toppandoo Nder wàcc nga koo xam ne fi mu teg tànkam tegoo ko fa festival yi mu def defoo ko li mu def man six ans de carrière lay def nga gis ku la invité ci album 30 ans de carrière kooku la mu def xaaj boo ko boo ko xaajee xaajaat 30 ans boo ko 30 boo ko xaajee ci dikk bi muy quinze 15 ans sax defaguma ko DJ Yves kon kooku lu mu la wax ci musique takkal téere bu la ne la duma sa moroom sax gëm ko li nga woy woyaguma ko album yi nga def defaguma ko fi nga tukkee festival yi nga def defaguma ko te xam naa ne bu ma ñëwee taataan ci sa barke foofa yëpp mën naa fa dem moo tax nag du ma guddal damay ñëw di la gërëm di la sant di di di di la wanaat suma mbëggeel ci sa jëmm ji ak suma cofeel ci sa jëmm ji ñëw fi indi la sa lettre mm-hmm. sa lettre bi nga xam ne yow yaa ko moom sa cër la sa bisu doom la nga nekk suma parrain suma invité d'honneur bis bi ma jëm ma bëgg nag balaa ñu faa dem fii nga toog nga ñaanal ma ci ndax xam naa la xam naa sa xol taalibe cheikh nga boo ma ñaanalee dëgg barka Mouhamad balaa ñuy def deux semaines bi dana jeex man loolu laa bëgg nga ñaanal nga ñaanal ma deux semaines balaa ñu faa dem tubaab ya woo mataar ko billet yi c'est fini jeex na ma ñëwaat fii ne la paire bi yi jeex na ñu àndandoo dem aéroport yéeg ci vol bi wàcc Charles de dem jëli ndam li suma ay bàyyi gunge ma ma ñemee loolu parce que xëy rek maa ngi ko doon wax démb xëy rek ñu ne tay la bisu Zénith bi ma tourné gis suma baay yëpp nekk ci sama wet ah loolu sama xel bu dal xaw ma luy dalati yàlla nañ ko fekkee père moo tax sa lettre baa ngi nii waaw sa lettre bi mi ngi nii teel ma damay jóg ça c'est officiellement ma ñëw nag seet si suma papa suma référence suma idol ki nga xam ne tey bu ma déggee Sidi Diop est un véritable bête de scène ci moom mi laa ko roote ndax Sidi bu feccee wala mu def ay déplacement am per ndeer rek ngay gis ak yeneen artistes ñëpp a ko bëgg boo xoolee Pape Pape Pape Diouf. Eh, noonu la bëggee sa jëmm ji. Eh. yenn saa ma seetaan eh, Waly muy way <laughs> mais may gis typiquement Nder. nga seetaan Tarba. mba El Hadj Kayta. mba Momo Dieng mbaa Pama mbaa Thiat ku ci way rek di nga ci gis Nder. yàlla na yàlla bàyyi la fi ba ñu mën a taataan lu yàgg yàgg yàgg ci yow jërëjëf jërëjëf ah. <laughs> euh, <laughs> c'est officiel. Ah, ah, vraiment, c'est... suis très très honoré ah. kontaan na trop ci ci acte bi ak gest bi mais nag li ma gën a bégloo. ginnaaw bi ma nuyu nit ñëpp ñi nga àndal nuyu àdduna bi nga xamante ni bii lii ci ñoom la jëm. mooy ñi nga xamante ne bi nañ ko gis ci réseaux sociaux yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp Sénégalais ak foo mën a ne moo xam yaa ngi ci biir Sénégal wala nga nekk ci diaspora bi mais benn wax rek lay wax ci loolu mooy c'est le Sénégal qui gagne ak foo mën a ne euh, li am rafet su amul woon mu ñaaw te dafa rafet ma lu nit mën a wax waaye lu rafet moom lu rafet rek la mën a tudd parce que nit dana xam lu ko war te du ko def wala nit xam li ko war di ko def te àndut ak acte mooy geste ak acte moom ngeen boole mais sama xel dal na li sama xel dale mooy gis naa ñi nga àndal da nga nekk ci buntu àdduna di xale boo dee xale nag soo bëggee yàgg ci li ngay def te bëgg mu jariñ la jariñ koo am parce que benn objectif nga am mooy nga tedd ci li ngay def teral ci koo am te teraanga nag pour man su ko nit ki amee bi ci dàq mooy bi nga njëkk am teral ci sa ndey bu yàlla dimbali nga am chance ndey ju sonn mën na laa waaye dangay fexe ba bokk ci doom yi gën a gën doom yu am jom mën na laa gën a gaaw a jariñ yàlla suñu boroom moom mën nitam te ni mu mën a nitam mooy barke bi mu def ak daraja ji mu def ci suñu liggéey muy way yàlla ci def barke ba tax mu génnee mu yéem doomu aadama mais pourtant su nit ñi réfléchiroon tuuti wóor leen a yéem mais yàlla la ñu xamul nu ñu koy def parce que li ñuy way par exemple benn morceau bu mel ni nettali da ngay toog ak sawaay léegi ne ko waaye sawaay man na laal def yow tamit ba ngay ba nga mel ni bett nga ma de da ngeen koy waxtaanee couramment te soo ko woyee yàlla def ci barke mu doon leneen ci nit ñi te li ñuy woy chaque jour nit ñi waxtaanee ko mais bu la yàlla dimbalee ba nga tënk ko def ko ci morceau way ko bu génnee yéem nit ñi et lu ñuy wax couramment la kon loolu yàllaa ko def bi des mooy yàlla bu la dimbalee nga bokk ci ñi nga xamante ni dañuy wax ni moi je suis le fils de diw diw ay sama baay bonul parce que yàllaa ko dogal wala wala bu la yàlla gën a dimbali ba bokku ci ñuy wax sax diwéy sans baay nga war a mën a wuti gën a wuti jom parce que ndey ju baax ju liggéey ci sa biir kër bàyyi len dong moo ko mën a feeñal mooy doom ju am jom te jom nag yi mu tënk dafa bari la mooy jom bi ci jiitu pour man muy la parce que ful la ak fayda soo ko amee darul la fëkk nit am oto di ci tiitaru xamul sax moom kan la moom nit doomu aadama mhm. oto weñ la yàlla daf la bind nit defar ko avion weñ la yàlla ko yàlla daf la bind yow doomu aadama pour nga defar ko loolu ngay war moo war a tiitaru ci yow parce que yàlla lu mu sàkk doomu aadama la ci gën a bëgg mhm. waaye nit ku nekk tolluwaayam da nga koy nangul doomu aadama bi li nga def nii non seulement ça fait ça fait plaisir mais pour man c'est très très très généreux dama daan toog sama benn magu artist bu waxtaan ak moom moom c'est vrai que ce grand frère là mais sa nawle la mu Youssou moo tax bi nga ñëwee fii ak kum mu mën a doon ci at yéen ñëpp lu ma leen mag mag mag lu ngeen ma respecté respecté respecté sama ay naw la artiste ngeen parce que ñoo bokk lu ñuy def te gis naa ni yàqu leen ko parce que su dul woon loolu du ma la recevoir man am naa fulla am naa fayda yàlla xam na ko mais xam fi nga jëm ak fi nga bëgg a jëm ak surtout sa objectif mooy taral say waajur lu ma ci mën danaa ko def ndax man dara dara ci àdduna feesu sama bët dul sama waajur lu ma mën a am fu ma mën a ne lu ma mën a doon fu ma mën a toll ginnaaw yàlla suñu borom du kenn du lenn ku dul Adja Ndeye Ndiaye Seck adduna dafa jaar-jaar bu nit ki war a jaar te su gëmee ni jaar-jaar bii mu war a jaar dafa am ko traceel te kenn mënu ci dara ku dul yàlla suñu borom parce que moom moo la ko traceel booy gëmm sax di nga fa àgg parce que yàlla suñu borom du ay njàccaar rek la bind am na ñeneen ñu bind ñoo xamante ni bi ñii doxuñu ñi waxuñu ñii gisuñu ñu dégg ñu gis waxuñu te pourtant fu nu jëm daan fa àgg yow mi gis di wax di dox di yëg bul jàpp ni yaa leen gën ndax fa nga jëm objectif bi nga am ñoom it am nañ objectif te pourtant gisuñu dégguñu waxuñu te daan àgg parce que yàlla leen ko yàlla leen ko teg te xam na fi mu leen jaaral ba ñu àgg fu ñu bëgg moo tax lu ci nit di dëtmal def ci sa fulla ak sa fayda def ci sa jom yàlla mën na la dimbali nga àgg te du am benn obstacle nga jàppee nii da ngay ñëw seet si ma dama am lu ma neex torop bi nga ñëw ba egsi ak say nit li ma neexoon daf ma gën a neex ndax lenn dong moo la yëngal succès neex na torop la gloire mais xam nga lu ko dàq mooy jom boo may jom doo faale succès parce que succès nit danam succès bu talaam àggul nit dana am talent bu succès am àggul dinaa tënk tuuti rek pour gën la conseiller ci àdduna yoon bi sori na waaja woy na ko benn waykat bu tudd Alioune Mbaye Nder nee na yoon wi la des sori na te metti na te gudd na ay jafe-jafe jafe rek la ndax yoon wi ngay jaar fu gis buntu yoonu tekki dafa metti olof Ndiaye def ni lu jot yomb wala fa ko wax mu ne ko non mën naa jot tëdd yomb ndax am na ñu yor caabi bunt jël caabi bi dugal ci bunt bi ci cellule bi te mën na ko tijji foog ñu wuti walla moo xam ku dajji bunt bi la moo xam ku naxanteeg cellule bi la moo xam ku am système la pour ubbi bunt bi mais yor na yow caabi bi mënoo ko ubbi te yaayu caabi. caabi bi. Oh. li ma lay wax nii. c'est des choses ki m'est propre yoo xamante ne bii dama je c'est le cœur qui parle parce que tu es mon fils et tu es mon ami tu fais partie des musiciens yi nga xam ni que am na fu ma leen teg ndax jomm man dofuma jënd jàpp ma yéen ñëpp laay xool ma leen di xool ci télévision mais loolu du yéen wax naa la ko kër Waly nga ñëw du jaale Waly fekk ma fa nga wax jox waali waali jox wax la ma wax la wax waali yéen ñaar te li ma leen wax mooy bu yóbboo ñëpp xam ni man Alioune Mbaye Nder li ma yàlla defal dama ko xam bu baax bokk na ci lim ma defal li gën a am importance ci man mooy moom suñu boroom fexe na ba ma xam ni man sama xarit la xam nga lu tax ma wax loolu xam nga sa xarit doo ko teg lu metti sa xarit danga ko yéene toujours lu baax waaw comme mu nag moom mooy yàlla te foog mu teg parce que ku mu bindi ci àdduna foog mu am lu mu la teg te comme man jàpp naa ni sama xarit la te sa xarit doo ko teg lu metti fexe na ba def ci man loo xamante ni bii lu ma teg te di ko teg nit ñi du metti ndax waa jële waykat ba booy bu tudd Alioune Mbaye Nder am na lu mu wax xam nga lu mu wax nee na sa waay doo ko yemale gaañ yi mm-hmm. ndax sa waay soo ko yemale gaañi yi dootul sa waay ci gaañi la mm-hmm. te comme man yàlla man duma ci gaañ ci waayam yi laa mu jox ma exemple ni ma kaay ma ñëw mun ma kaay ma jox la exemple mm-hmm. man ko luy exemple ma dama la jox exemple bu patent boo xam ne adduna yëpp dañ koy gis man ko waay dimbali ma waay mu ma Ousmane Sonko du ma yor projet bi. Mhm. ma ne ko waaw mën na jàppale Ousmane Sonko ñun toll ma ne ko bari nañu mu ma ñu tëj ngir Ousmane Sonko ndax projet bi ñun toll ma ne ko bari nañu mais ñooñu ci gaañi lañu man ko ah mun ma may jomaay waa ji mhm. waaw ma mhm. mënoon tànn bari na trop. ku ñu nekk candidat ci gaañ yi amee ah, dafa am waaj waaw mhm. ah, loolu la ma yàlla defal moo tax lu ñëw rek lu mu diis diis diis diis yàlla dimbali ba ma am lu ko atténuer lu ko saddal ba mu sadd nit ñi sax dañ may ñeewantal parce que c'est normal doomu aadama te dañoom yëg-yëg ak cofeel ak yéene mais damay dalal xelu ñëpp ni mm-hmm. yàlla mi war a def mm-hmm. te tegaate mm-hmm. mooy teg doomu aadama bi lu te dafa am sëriñ bu baax di sama sëriñ yal na yàlla yokk leeram muy sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nee na il s'en fout et puis c'est tout wax lui bu la yàlla defee ni mu la def yow Sidi kenn mënu ci dara il s'en fout et puis si tout c'est Sidi Diop la joxar bi mm-hmm. am na benn moment boo xamante ni bii Alioune Mbaye Nder wayul wala bokk bu way bokk ñu koy déglu nangam nangam am lu ko causé te xaj na du ma ko mën a wax sax instant bi mm-hmm. mais li ma ci mën a wax rek ci gàttal mm-hmm. mooy amoon na lu tax waaw te li li tax xaj na ci jamono yu wees sax nit ñi am nañu xaw comprendre l'occasion viendra incha allah dinañ ci mën a waxtaan bu bara bu baax a baax a baax a baax. ñu ne ko guddi gi ah émission guddi gi. waaw <laughs> mais daf ma ni moment bi ngay toog sax nit ñi di la anandee rek nangam nangam. Mhm. yow kaay ma wax li ma ne defal yow sama xarit. man ko mhm. mu ne ma am nga ñoo fi nekkandool say morom lañu say nawlu lañ. man ko mhm. mun ma wax mais yow dinaa fex ba kenn du la fàtte man ko yàlla noo ko defee mun ma damay créé Wally Seck. coono ko jur mooy bàyyam Youssou Ndour la mag mais bu doxee kenn du wax Youssou kenn du wax coono. daan naan ay waay ak ndeer man ko ah man ma du ma ci yem mm-hmm. am na kenn xale bu tudd Sidi Diop day ñëw mm-hmm. bu takk laasa yi sax day xool nu ma koy pese mm-hmm. ndax ma ngi xel Alioune Mbaye Nder pour bu génn ci télé bi rek Assane du xool lii da Nder te Sidi du ci man dara am na kenn diw ak diw ak diw ak diw pour ne pas citer parce sànq wax nga ko loolu du man yàlla la yàlla def ci xolu nit ñi ni diw mii mi ngi fi xëy na lii moo ko dal mënagul def lii mais dinaa ko jaarale ci ñii pour ci ñëpp pour ñu koy fàttaliku te pourtant moom ay ñi moroomam ñoo fi nekk ndoor mais bu Sidy Diop doxee kenn du ni si diw lay nirool wala diw lay toppandoo su wàll doxee du ni diw lay nirool wala diw kenn la ñuy wax ni moom lay nirool wala moom lay xa te loolu yàlla ko dogal du man donc mu nekk loo xamante ne bii dama koy sant yàlla suñu borom ba may jouer soirée musiciens yi ñëw di seetaan si damay sax jaaxle parce que damay xam ni li cofeel la te li koy firndeel li koy dëggal mooy lii déplacement bi mu def parce qu'il n'est pas petit lui ah il n'est pas petit c'est xam nañu xamee nañu dañuy déglu defuñu te yaa ngi jëm ci salle bu mythique xam ne xaj na bi may def Zénith ak léegi boobu seet la peut def na dix huit ans ak léegi dama koy def Magic System la boobu moo def premier première partie waaw temps yooyu lay gaawoo gën premier gaawoo n'est pas gaawoo ñu ñëw joué après ma ñëw joué sama concert Bercy Zénith New Morning Bataclan euh, Olympia Olympia Rio Loco yooyu yëpp fitna man France sax laa yem France rek laa yem yaay ay festival la mais France laa yem ci saal yi nga xamante ne bii ñu ngi ñaan yàlla ngeen dem fa ñu ñu dellu fa te bëgg naa incha allahu taala comme ni ma ko waxee 30 bi bii nga xamante ne bokk nañ ko ma def ko muy sama 30 ans de carrière ma wóoloon ci yéen ñëpp ku ci nekk ñëw spontanément wan ma sa cofeel bis bu may jàpp date incha allah ca France ca Bercy nii nga ñëwee nii noonu laa bëgg ëllëg yéen ñi bokk ci album bi yëpp ma regroupé leen ngeen ñëw ñu dem Bercy béggali senegal yi fa nekk parce que ñi bëgg Alioune Mbaye Nder mhm. bëgg Sidi Diop mhm. bëgg Waly bëgg anyway ñu bokk benn scène bari na te ñu ngi ci diaspora bi te loolu ñoom ñoo ko moom ci ñun dañ leen ko war a jox ma lay ñaanal yàlla guddi gii nga toll nii xam naa fi nga toll xam naa sa yëg-yëg benn objectif rek nga am mooy Zénith fees dal amoo beneen problème man loolu laa xalaat parce que man xam naa li ngay wax ni dal na ma fii bi may def stade Demba Diop. Sargal Tyson 97. may joué stade Demba Diop benn problème rek laa am na stade bi def cent millions je xaalis bi intéressé wu ma la ma intéressé woon mooy défi parce que li xew ci artistes yi te mu pesant mu xaw a dis ci ñun mooy nit ñi dootuñu wax ndax neex na dan naan ndax fees na donc problème musicien bi artiste bi problème am du nekk problème mu xaalis benn défi la am ndeysaan muy moom dafa bëgg a jóg pour bëggal doomu aadama yi mais li mu jox sénégalais yi dañ ko ko delloo te nit ki amul lu dul bés boobu donc maa ngi woo askan bi yëpp en commençant ici au Sénégal ñi ko mën te de mën déplacé wu bu ñu wax kii mooy sama musicien wala kii sama musicien la ku ko mën ni nga ñëw nga jàppale ko parce que xale la bu nekk ci yoonam te dañ ko war a gunge lii mu def nii. su ko mënoon def ci Sénégalais yëpp waxuma la artiste de dana ko def ci kër yëpp pour rek bës bi mën a am réussite total yaakaar la ci am am talent boobu ba léegi mi ngi ci am fit lool ma gis ko mu gëm boppam bëgg a teral waajuram bëgg a nekk kenn ci adduna bi ci li muy liggéey ngeen bëgg ko euh, cofeel googu ngeen am ci moom moo ko moo ko moo ko poussé à que mu dem jëli cette grande date là te nit ki mu ne danga ko bëgg wuta sol carax doog ko nangul wurul ja jël njaganjaay doog ko nangul wurul late doog ko nangul te doo contribuer ci carrière soo bëggee fu mu tudd du Diop nga kontaan da ngay contribuer ci carrière am ci carrière mooy fu mu wootee nga ñëw lu mu génne nga jënd ko fu ñu koy wax wax ñaaw sax bu fa taxaw nga défendre ko parce que c'est le Sénégal qui gagne c'est un Sénégalais c'est le fils de notre pays notre cher le Sénégal il faut l'appuyer moi j'appelle tout le monde man papam la xaritam la sopp na ma te adduna xam na ko comme ñeneen ñi ni ma soppee te adduna xam na ko je parle euh, maa ngi ci réseaux sociaux yi li may wax du ma fomante am naa fit wax ko ci seen kanam parce que ñoom may nañ ma ko wane nañ ko fu ma nekkul wane nañ ko fu ma ne mu nekkul foor ci man loo xamante bi man maay dellu di gërëmaat yàlla suñu borom ci respect bi sénégalais yëpp am ci man mais en particulier ñi nga xamante ni bi ñoom la bokkal métier mi mooy les musiciens instrumentistes les chanteurs et les hommes de médias maa ngi leen di gërëm di leen sant di lancer waat encore euh, un appel Sénégalais yëpp ñu ñëw jàppale suñu doom gunge ko mu am ndam parce que su amee ndam c'est la musique sénégalaise qui gagne noonu laa ko gisee te noonu la ko ñëpp war a gisee li mu def nii dara ñaawu ci lépp rafet nañ ko gunge. ba bés ba bu gestoo gis ñu mu war a gis gën a am fit parce que qu'il est appelé à faire Bercy pourquoi pas. bien sûr mais def Bercy léegi def na presque vingt ans. Mm-hmm. na ko defee léegi. Euh, ñu ngi ñaan yàlla dem defaat ko. Mm-hmm. pourquoi pas moom def ko war def mm-hmm. ñeneen ñi dañ ko war def. parce que c'est la fête. et voilà donc maa ngi lay ñaanal yàlla di wax ni que yal na yàlla taxaw ah ci barke mag ñu baax ñi. Ah, yaakaar gi nga am yàlla du tas yaakaar nag yàlla moom mi fa dégg nit ñi yàlla bu yàlla tas yaakaar non non du tas yaakaar da ngay yàlla bu yaakaar tas mhm. yàlla du tas kenn mhm. booy ñaanati bul waxte yàlla yàlla tas yaakaar bu yàlla yàlla bu yaakaar tas mhm. yàlla moom amul lu bon lu baax rek la am te loolu laa gëm sama xarit boobu donc maa ngi lay ñaanal fils ah, wax ji bari na parce que voilà suma xol moo doon wax c'est vrai que jot amul mais li nga def nii aussi dafa rëy ci man bugg naa sénégalais yëpp xam ne que lu sincère la ci yow délégation bi nga àndal macha allah te sa entourage gis naa ko macha allah gis naa ni ñuy waxee gis naa ni lay jàppale gis naa ni lay gunge entourage dafa am solo trop ci artiste Parce qu'un artiste peut, fait, peut, être fouguant. Hein. Il a son talent, il a le succès, et tout, tout ce que tu veux. Donc il faut qu'il faut qu y ait des gens à ses côtés. Non seulement pour lui remonter le moral, mais aussi pour lui parler de temps à autre, parce que c'est bien. Nous, artistes, parfois, voilà, on est out. il faut nit ñi diñ dellu si li nga war def li nga war def li nga war def fii yéen a ngi fii sama kër bu ngeen xoolee nii y a rien de musicien amul sama photo ma téy amul dara lii ngeen fi gis kaamil alxuraan nag waaw léegi nag c' Nder. Mhm. ça vous êtes chez Alioune Mbaye. <laughs> rendez le juin. waaw rendez le le 29 juin incha allah mais yow benn problème la am nag. Mhm. ma place ci pour bu ñuy dem quoi incha allah. ngeen dem yaa star bi yow laa bëgg a dana. <laughs> Ah, ah yow daal fi toog ci avion bi fa toog incha bu fekkee ne boobu daal moom mën naa ne. gars yi je donne ma parole. sii di daal fi toog nii fa laay toog <laughs> waaw waaw dinaa bëgg naa ñëw gunge <laughs> ah, taala ah, fi ci avion bi. loolu fa loolu daal ndax nee na mooy star la. mooy sama star. mais man mooy sama star. Fall même chambre sax na takkaloo. waaw jéem na mais moom moo ko wax ko waaw donc macha allah ñu bàyyi sëñ Mbacke nga tëj comme yaa ubbi. waaw xanaa moom mu def ñaan mu ñaan waaw non non dafa ñaan waaw. xam nga Sidi. jërëjëf. wax dëgg yàlla kàddu yu fi jib yëpp ay kàddu mbégte la dem nan fu ne dégg nan lu ne waaye sànq bi nga waxee ni sama xol mooy wax nangul nan la ko xam nga nit bu la bëggee rek moo lay wax ne la jaaral lii defal lii Aline Mbaye Nder ci musique sénégalais toog ak doomam Sidi Diop naan ko defal lii moytul lii waxal lii waaye kon yow la nga doon xool ca moom ne boo ko seetaanee ndeer ngay gis tey nag firnde ko ndax li nga ko wax yëpp kii xam naa ko de bi ngay wax mu takk niwaar fiimam yi di mel ni ku la déggul aka laa dégg aka dégg déggul na la ndax nopp bu baax bi la la jox bii du dégg moom nopp bu baax bi rek la la jox te xam nga olof nee na ku ñuy digal ngay dégg kenn mun laa tee jariñu waaye ku ñuy digal doo dégg kenn mun laa tee loru kon yow li nga mel dal la koy nangul bi ñaan yàlla sunu borom guddal sa fan yàlla na la yàlla wéral lii dafa neex lii dafa neex ndax tey boo dañoo nag sëriñu daara ndonga daara bi fu mu dajee ak moom lam ko jàngaloon bu ko tariwul la kooku du woon élève ndax li nga jàng rek ngay tari waaw kon nag li ñu waxe woon mu ne dafa ñëw ngir nga ñaanal ko ñu lay koy sàkku ci yow ndax nag euh, li nga wax fii léegi lépp da nga ko jël teg ko ci kaamil alxuraan boo ko ubbee fekk ko fa